billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi farada siyaama ala ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walhamdulilahi alladi awlaana maa awlaana min siyaami ramadan bokki jullit yi ñi ngi tàttagal di wax ñëpp jumaa mubaarak di ndokkali ñëppit nag ci aljuma ji nga xam ni moo jiitu ci weeru koor shahru ramadaana al mubaarak yàlla dëxañ ci ay poyteef yoo xam ne xeetu yonent bi rekk la ko jagleel subhaanahu wa taala di yërmande joo xam ne xool na ko bëtu bëtu yërmande boo xam ne xool na ko xeetu yonent bi di bëtu njëggal boo xam ne xool na ko xeetu yonent bi di bëtu gracier boo xam ne xool na ko bëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñett yooyu nag li ñuy rëy rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni li ñett yooyu di rëy rëy ñett ko gën a rëy ba duñ ci bokk laaj ko ne ko ñett yooyu yan la mu ne koo xam ne day naan sàngara dappati kooku lànk ne du ko bàyyi kooku du bokk ci bëtu yërmande bi yàllay xool xeet bi ñu ne ko ak mu ne koo xam ne dafa dog ak bokk ku dog sag bokk fexe ba sag bokk dog kooku bokkuloo ci yërmande ji yàllay xool xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu laaj ko ne ko ak kan mu ne koo xam ne da tong sa ñaari wayjur wala say wéyjur dañ la mere li yërmande ji yaatu yaatu yaatu ñooñu duñu ci bokk koor nag di ñeenteelu farata boo xam ne yàllaa ko santaane jox ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci ay aaya yoo xam ni yu fasantikoo la ci alquran mu wax ko ci alquran baada audu billahi min alsheytaani arrajim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 yàlla wax na ci alquran ne ee yéen ñi nga xam ne yéenay jullit ñi yaa ayyuha alladina amanu nag boroom xam-xam yi dañu wax ne bu ko yàlla waxee rek mooy la crème de la ñoom la yàlla soxla pour wax ak ñoom ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla kon ku gëmul yàlla rek bokk ko ci appel bi mu ne farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataalee woon ci xeet yi leen fi jiitu woon ngir lan ngeen jëlee ci ak ragal yàlla koor nag mbokk yi dañuy wax ne bu munula bu munula jural boroom ragal yàlla jaratul woon mu di ko def ndax taqwa kese la ci yàlla soxla taqwa rek amut leneen lum ci soxla parce que koor mooy ñeenteelu farata bi nga xam ni mooy ñeenteelu pied ci lislaam boo jógee ci koor bu ñu ne korite bala ñu cee teg ñaar fukki fan walla ñu ne tabaski dëgmal ci ngay dégg ñu commencé préparer aj màkk di takk bagaas yi te yàlla bim ñuy woo ci aj màkk laaju fa woon xaalis bu bari yàlla laaju fa woon yére yu bari laaju fa woon ay bagage yu bari li mu laajoon mooy daf ne woon wata zawadu fa inna xayra zadi taqwa na ngeen yóbbalu su ngeen di ñëw màkk na ngeen yóbbalu ñu ne ko lu ñu yóbbaloo mu ne li ngeen di yóbbaloo daal lu ngeen ci indi lu du ragal yàlla yi ci des yëpp pour yéen la soxlawuma ko kon ragal yàlla googu ñu ngi koy jiyee ci koor gi ci lañ koy jiyee tàmbal ci say cër téye ko tàmmal ci sa làmmiñ fekk ko tàmbal ci sa bët bañ ci xool lu xaraam tàmmal ci sa biir xiif pour mën a jaamu yàlla tàmbal ci sa bakkan pour not ko tere ko yu neex yi ñu ne su ngeen ko defee de ci ngeen di jëlee ak ragal yàlla te yaakaar naa jullit lépp loo xam ne dana ko jural ragal yàlla loola jaroon na mu dem ca ba keroog mu cay yem yàlla ne su fekkente ne dangeen a woor ba noppi feebar dab leen mu ne na ngeen leb fan yu toll ni li ngeen feebar bu ngeen tanee ngeen fay ko wala koo xam ne tukki daf la gaar te tukki bi di tukki farata moo tax yonent bi daana wax ni laa xayra fi sawmi laa xayra fi safa ah, safaru fi sawmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni yiw nekkul ci oor ba noppi di tukki kuy tukki na nga dog su fekkente ne tukki ba du tukki bu lay jural bàkkaar yàlla ne day koo xam ne nag koor gi jeex na nga mën a am kàttanu dinaa fi la teg ci wala nga gunge wala loo man ci koor nga di ko def nee na kooka day mi ngi def yiw boo xam ne kenn xamul nu mu toll te yàlla nee na sax wa an mu xayrun lakum su ngeen wooree day ah na ngeen xam ne moo gën ci yéen ndax koor dafa am yu bari yu muy réparé ci doomu aadama koo xam ne nag yàlla dafa dogal nga feebar feebar bi dem nga ci médecin mu consulter la xool la xam ni mënulaa woor mu ne la yow kat mënuloo woor su boobaa lañu la sant mooy nag nga génne mudd di ko jox miskin boo xam ne dana ko lekk muy lu ko man ndogu soo ko defee mooy jàng fan yi nga xam ne moom nga feebar ci koor gi te mënula koo fay yàlla ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor wi mooy weer woo xam ne ci laa wàcc alquran man yàlla seen borom jëlee ko ci lawul mahfuz indi ko ci baytul izza mu nekk fa ba ab diir bi ko yàlla soxla diiru 23 ans yàlla di ci wàcc alquran waaye cëslaay li moom ci weeru koor la ko yàlla sabab kon weer yu màgg la di anniversaire u alquran yàlla ne li mu ci jublu it mooy ngir ngeen jub ak lu leen mën a gindi tegaat leen ci yoon yàlla nee na wa bayinaatin min al huda wal furqaan weeru koor woowu ma leen wàcceel alquran alquran ji moo leen di tàqaleel diggante dëgg ak caaxaan waaw yàlla ne képp koo xam ne fa man ko mu shahra ku fekke ci yéen weer wi te ànd ak fekke ak wir ak tal na ko woor wa man kaana maridan koo xam ne danga feebar aw ala safarin wala nga nekk ci tukki fa iddatun na jël ay fan min ayaamin uxar lu tol ni la mu ca leb bu weer wi jàllee mu fay lu tol noona mu ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jàppandi te yomb ci ñoom waaye buggul ci ñoom lu jafe ndax lu jafe yàlla du ko teg parce que yàllaa ni laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha man yàlla duma teg benn bakkan lu mu àttanul yàlla du ko def mukk euh, nga seetlu ne yàlla daal sunu borom boobu subhanahu wa dem na ba ca biir sax mu ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni xaribun ah, ñu bari dañu jàpp ne nag ci weeru koor wi mooy saatul ijaaba ñu bari ci boroom xam-xam yi jàpp nañu loolu ne weeru koor daal bokk na ci saatul ijaaba ah, bokk na ci la cay firnde yonent yàlla Muusa alayhi salaam dafa déeyaale ak boroomam ca tuuri Sina ba déeyaale ba di waaj a jeex waaye neexitu yëg teraanga dana waral léegoo léeg nit ke wax lu ko gaw yu yonent yàlla Muusa ne yàlla sunu borom bi subhaanahu taala yow yàlla de dafa mel ni defal nga ma teraanga joo xam ne defaloo ko kenn te dootoo ko defal kenn yàlla ni ko Muusa teraanga ji ma la defal jan la mu ne ko teraanga ji nga ma defal daal dafa mel ni may nga loo xam ne mayuloo ko wenn xeet dootuloo ko may kenn yàlla ni ko limal ma dégg mu ne ko man daal yow sama borom maa ngi am di wax ak yow nga di ma tontu sans intermédiaire yàlla ne ko Moussa loolu bu mu la naaguloo am naa xeet woo xam ne ñi ngi ñëw ci mujj jamono bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu suñu woore ba ngoon jot ñu tiim liñ war a dogoo seen xol yi wow koŋ ngir mar seen biir yi xiif ngir ngir ñàkk lekk seen tuñ yi weex tàll ngir aw mar waxtu wu ñu yëkkati tàndarma ji di dog ñu naan allahuma diggante sama diggante ak ñoom kiiraay bu fi doxoon dama koy effacé jox leen sama nopp di leen déglu yonent yàlla Muusaa ne ko yàlla daal kon ngéejoo woon naa bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu defe naa ñun dong ñun ñoo ko am ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy or ba ngoon déeyaale sa boroom loolu mbokk yi xéewal gi ci nekk niwul fenn euh, muy nag loo xam ni ñu baari ñaari dañ ci porox ndollu di ci dugal yoo xam ne bokku ci euh, sama mbokki théâtre kat yi ak ñi ma ko war a wax nañuy bàyyi di foye diine ji diine ëpp naa foye parce que dafa sàkkre euh, parce que woor ba ngoon war a dëgmal sa borom ñaan ko mu may la nga jéggalu ko mu jéggal la amula dara loo ci xalaat lu ñu tegal la ci ay maalumatul liaba yoo xam ne dana la fàtteeloo sart bi la yàlla santoon ci sa bopp wax dëgg yàlla loolu kenn ku nekk ci ñun war naa mën a ngéeju éviter ko ba la dal euh, yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci xam gum xam doomu aadama dafa am kenn ci saxaaba yi koo xam ne euh, weeru koor dafa jot mu ànd ci ak soxnaam ndax ba njëkkoon dañ leen ko tere woon yàlla dogal nag loola dal ko njuumte am ci mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko li ko dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déglu ko mu wax ba pare ci la jibril wàcc yàlla ne uhilla lakum laylatu siyaami rafasu ila nisaaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum wa afa ankum fal aana baachiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum wa kuluu wasrabuu xataa yatabayana lakum alqaytu al abyadu min alqayti al aswadi min alfajri summa atimmu siyaama ila alleyl wala tubaashiruhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi tilka xuduudullahi falaa taqrabuha kadalika yubayinu allahu ayaati linnaas laallahum yattaquuna sadaqa allahu alazim saxaabi yu bi lii daf ko dal mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man nag ànd naag sama soxna ci guddi gi ma di la laaj ban àtte wàcc ci sama kaw ci la yàlla yebal sayidina jibril alayhi salaam mu dikk indi aaye jii ne yàlla nee na daganal na ci guddi guddig weeru koor ci ngeen ànd ak seeni soxna nee na daganal na ko ndax soxna yi yéen yéenay seen kiiraay waaye ñoom it ñooy seeni kiiraay te yàlla xam na ku war boppam xam na ku warul sa bopp it yàlla xam na kon yàlla nee na sunu borom bi subhaanahu wa taala jéggal na leen bàkkaar boobu ngeen def beneen bi ci desit may na leen lu ko dalee bis ni ki tey guddi weeru koor ngeen di ci ànd ak seeni soxna teyit na ngeen di lekk guddi gépp ba nga xam ne bu fajar xare nga mën a xàmmi wëñ gu weex ak gu ñuul ci ngeen di doog a fasaat seen koor jëmalewaat ko jant bu so taxul nag nga def ko rek kooru ndaw kundaa goo xam ne da nga jël wëñ gee gëñ gu ñuul gu weex gi teg ko fee ni fi ak ma koy ràññee mu ne fàng rek du ma bàyyi lekk du ma bàyyi naan dañ ko wutal ay heure wutal ko ay dele ay limite léeg-léeg sax nga gis koo xam ne day tiim xëdd bi nekk ca di rey boppam ba dégg ñu naan salaatu xayrun mina naw mi mu ne man jàkk jëli laay déglu léeg-léeg sax nga gis koo xam ne day dem ba day tànnal boppam jàkk ju muy déglu parce que ñooy mujjee salaatu loolu ëpp na war nga mën a xëdd jël sa temps trente minutes avant ñoo salaatu wala boog sax une de temps avant ñoo salaatu lépp ci yiw la bokk parce que dañuy wax ne loo bëgg mucc ca aywa da ngay fexe ba moytu jàmm ja ah, bu ko defee yàlla ne sunu borom bi subhaanahu wa taala soxna yi bu leen di jonjoo ak ñoom bis bu ngeen nekkee ci li'tikaaf li'tikaaf nag yonent bi daana ko def waaye mi ngi ko daan def ci fan yu mujj yi ci weeru koor la daan dem beru boppam beru jigéen ñi dem ca biir jàkka ja féete fa lu dul mu am soxla bu ko gaar mu war a ñëw ci kër gi du fi teg tànkam yàlla nee na su ngeen nekkee ci laatikaaf daal fu foofa bu boobaa moom teg teggil nañ leen ne bu leen jegeete soxna yi waaw na ngeen na ngeen na leen beru su boobaa daal ca ngeen di mën a gën a jëfe li leen yàlla wax te it ca ngeen di mën a gën a amee ragal yàlla gi ngeen doon sàkku ci weeru koor mu mel ni nag wooru kafaara ooru kafaara mooy lan oor ba ci digg bi nga xëy dog ta tey ko su boobaa pen bu metti moo tege ci sa kaw mooy dangay ngay oor ñaari weer yoo xam ne dafa toftaloo muy juróom benn fukki fan yaakaar naa dog benn bëccëgu weeru koor te tey ko gravité bi ci nekk jullit bu ko xamoon sax doo ko def Euh, nangu nañ ci xaddis benn yahud boo xam ne dafa nekkoon ci medinatul munawwara jaxasoo woon ak jullit ñi ci marché bi yàlla dogal benn bés doomam di lekk ci bëccëgu weeru koor ci biir marché bi mu dóor ca doom ja dóor yi metti ne ko xanaa yëguloo ne suñu mbokki jullit ñi dañoo oor nga jox leen orma yàlla dogal ñu dem jimmi jamono ci la yahud bi faatu am ko tëdd gént gis ko mu nekk biir aljanna mu laaj yahud bi ne ko loog yow ak aljanna mu ne ko xor ma jox ma joxoon jullit ñi ci bëccëgu weeru koor te sama doom doon jëfandikoo lekk ma dóoru ko ca la ma yàlla jéggalee dugal ma aljanna kon mbokk yi kon yow mi nga xam ni jullit nga ci bëccëgu weeru koor waaye waay ëppaleel sa bopp lekk nit ñi di la xool même bu la ngànt dabe sax sàngal say mbokki jullit sutura xormaal li ngay lekk xormaal sa bopp xormaal weer wi jox ko teraanga ji mu yeyoo ci say mbokki jullit même boo wóorul sax na nga góorgóorlu boobu ko xam-xam ci yow waaye nag léegi réew mi dangay gis koo xam ne daf ne jullit la ba noppi ñàkk woor noo seulement ñàkk woor su ko yemale woon ci foofu kese sax mu baax waaye da cay boole wane wu mel ni ku am sañ-sañ ci boppam te mbokk yi yàlla libéré wul kenn yàlla ku mu bind ku nekk dafa am fu mu la yeewal boppam ci buum gu dëgër buum gu dëgër ci la la yàlla yeew nga xam ne yow mii kat am na lu la yàlla sant muy weeru koor muy ñeenteelu ponk lislaam nag di ponk boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy sos diine ji daf ne woon buniyal islaamu ala xamsi xam xamsati arkaan shahaadati an laa ilaha illa allah wa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa sawmi ramadan wa xajji baytillahi alxaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon lislaam bi ma yàlla jox maa ngi ko samp ak juróomi fon juróomi poto juróomi poto yoo xam ne benn munu ca bàyyi moroom ma bi ci gën a dëgër nag mooy seede ne baat yi yàlla kenn la amul benn buur bu dul moom nga kennal ko wéetal ko moom yàlla subhanahu wa taala soo ca noppee nga seede ne man yonent bi yàlla ma yónni su boobaa dugg nga ci daairatul imaan soo ca noppee nga nangoo taxawul julli soo ca noppee nga nangoo woor weeru koor soo ca noppee nga nangoo natt azaka soo ca noppee nga nangoo jaamu yàlla dem màkk soo amee loo ca demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la daan wax moo tax daana wax ne umirtu an uqaatila annaasa xata yashhadu bi an laa ilaha illa allah wa yuqimu salaata wa yu'tu zakata fa ida faalu dalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum wa xisaabuhum fi xaqi fi fillah yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ni yàlla ma digal ne ma naa xeex ak nit ñi ba keroog ñuy nangoo seede ne moom dong moo fi nekk di buur yàlla ma digal ne naa xeex nit ñi ba keroog ñuy nangoo taxawal julli yàllaa ma digal ne naa xeex nit ñi ba keroog ñuy nangoo joxe azaka yàllaa ma digal ne naa xeex nit ñi ba keroog nangoo woor weeru koor yàllaa ma digal ne naa nangoo xeex nit ñi ba keroog ñuy nangoo aj màkk seede baati seede yi seen alal xaraam seen deret xaraam leneen luñ defati kenn du leen ko topp ndax amuloo ci droit yàlla yoroo seen attewaay yow yoratuloo ko kon mbokk yi ci lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeex diiran wu vingt trois ans yi nga xam ni ci la ko yàlla yónni mu doxal mission boobu nag ci sérénité sérénité bi mooy lan mooy fexe ba teg ko ci njub ndax yàlla sax joxoñ ko ci alquran ne wa in tutiuhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balaaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko joxañ baaraam joxañ xeet wépp ne su ngeen ko toppee da ngeen jub kon ku bëgg jub toppal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu la ko joxe woon ni mu la ko waxe woon ni mu la ko sante woon loo ca bàyyi rek mankel nga la mu la santoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dellu waxaat ci alquran ne yonent bi day lépp lu ma leen jox na ngeen ko jëfandikoo ndax man seen borom subhanahu wa taala man maa leen ko sant mbokk yi loolu mooy weeru koor ñi ngi ci fukki fan yi nga xam ne yërmande la di ñaan yàlla mu dugal ñu ci te yërmande yàlla làmb na àddina ak li ci biiram ndax yàlla kat a wax ne wa rahmatul wa rahmati wasiat gadabi man sama yërmande moo gën a yaatu sama mer ci yéen kon yërmande jooju yal nañu ci yàlla diigal mbokk yi liñ ci saraxe liñ ciy jaamu yàlla liñ ciy def nawaafilul xayraat liñ ciy def ci ay jàng alxuraan di ci def dirasaat yépp yàlla nañu ko yàlla defal yiw te it nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni woon jullit du dañ di am yiw mukk li fekk ci bëccëgu weeru koor mi ngi ciy dox lu jagal lislaamam lu jagal euh, soxlay mbokki jullitam euh, te nag mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon man aftara saiman fa alayhi ajruhu wa ajru man wa ajru fa alayhi fa alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon man aftara saa'iman fa alayhi ajru min xayri an lam yanqu min xayri an yanqusa min ajri saa'imi shay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon ku fexe ba ku woor nga dugal ci biiram lu mu doge jaamu ca yàlla nee na am nga ci tuyaaba lu tol ni la mu woor te yàqul ci kooru kooko dara kon loolu rekk jaroon na ko mbokk yi te it nag dañuy wax ne bari pexe ak waane weesuwul fexe bu dugal ci biiru jullit lu ko rekk loo xam ne bala moo pare dana ca rukkon jox yàlla wala mu sujjot ca jox yàlla wala mu tuj euh, tudd ca yàlla jox jox jox yàlla wala mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mën a màng yiw wu mel noonu kenn xamul lan nga jëmbat moo tax jullit lépp lu koy dugal ci aw yiw rek war na koo seetaat te it nag ñu wattandiku ci grand palace yi nga xam ni duñ ca wax dalalu du mboosóor ni ñu wattandiku grand place yi nga xam ni duñ ca def dara lu du wax ay bi jaambur nañu wattandi ko grand place yi nga xam ne dàq koor lañu ko tudde te dara baaxu ca ndax koor mbokk yi dañ koy gàttandu dañ koy tatagal waaye kenn du ko dàq ñu wattandiku ci nag juillet damier juillet PMI ak beneen buñ ci mën a def te mu xeet dugg ci xeetu po nañu ko wattandiku ndax yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man laayba bin nardashir fa ka annama sabaga yaddahu fi laxmi xinzir wa dammihi képp koo xam ne suub nga sa loxo ci am po mu ñu tuddee ab juillet dafa mel ni danga dugal sa loxo ci yàpp mbaam xuux wala ca deret ja sax nga taq ca kon mbokk yal nañ ci yàlla musal yal nañu yàlla defal dégg ak topp yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yal nañu yàlla fulal liñ ci saraxe yal nañu yàlla fulal suñuy naafila te nangul ñu ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu